Mhm. dama bëgg a interpeller directement euh, mhm. dama bëgg a directement le procureur de la République mhm. ah moom mi nga xam ne dafay autosaisir ci ay articles yu ñu partagé ak ay émoticônes comme waa mafia kàcc kàcc kàcc kàcc je crois que wax naa fi loo xam ne war na yitteel képp koo xam ne dafa bëgg a teg dëkk bi ci yoon parce que tuumal naa fi ay nit ci ay dossiers sàcc yoo xam ne ñoom bu ko bëggee leeral Euh, def naa am na opportunité autosaisir. wala mu ubbi enquête wala quoi que soit en attendant keneen di ko def donc euh, parce que am na dëkk lu muy doxee loo xam ne aussi bu ko tegee ci table bi ñi ko séq débattre ci ñi ñu dénk du ñu du ñu dugg ci débat public bi mais yoon a ngi fi yoon na def liggéeyam loolu laa doon tàggatoo.